mu lay jàngal sart yi nga xamante ne mooy tax nit ki juma war ko mu ne wa arkaanun ak ay ponk yi nga xamante ne dara bu si manqué jumaa ji du baax wa aadaabun ak ay teggin yi nga xamante ne day tax jumaa ji day gën a mat wa anzaarun ak ay ngant yoo xamante ne tubiixu dina dëgg na at xalafuuti ana walis jumaa ja ak yenn si yi nga xamante ne bu la si dara dalee mën ngaa ñàkk dem julli ji mu ne fa amma surutu wujubiha waaye sarti ke waral fa sabaatun juróom ñaar la fa sabaatun juróom ñaar la mu ne bi si njëkk al islaam mooy doon jullit kon kayfiyat juma waru ko wal bulugu ak jot baa kon xale juma waru ko wala aqalu ek am xel wala aqalu ek am xel kon dof wala aqalu ek am xel kon dof juma waru ko wa zukuriyatu ak doon góor kon jigéen juma waru ko wala xuriyatu ak doon góor kon jaam juma waru ko wala iqaamat waaw mu ne nag ki nga xamante ni nag moo nekk xale bi ak ku góor ki xale bi xale bi ak ku jigéen ki ak jaam bi ndax ñoom buñ jullee ba xam baax ibnu borom borom ibnu asi nee na xattum damoo doon kaa soob mu ne ñooñu mu mënoon nañ dem julli ji borom ibnu asi damu doon kaa soob waaye nag ki nga xamante ne nii moo nekk dof bi ak kéeféer bi ñoom moom buñ jullee sax du baax mu ne wala wala iqaamat ak sax bëgg nañ imaam bi nga xamante ne moo jiite bu dee mu ne wala iqaamat ak sax bu dee nit ki dafay dem tukki ji mu ne kooku noonu jumaa war ko ko kooku tamit bu bu demee julli dañ koy soob mu ne wa ak wér mu ne ki nga mu ne mu ne bëgg nañ mu ne ki nga xamante ne juma war na ko mu ne kooku noonu su feebaree ma kooku noonu mun naa ñàkk dem julli ji ku feebar juma waru ko loolu la bëgg wax ku feebar juma waru ko waaye nag mu ne nag bu dee dafa feebar ba nga xamante ne bu dafa feebar feebaru mét ba mu ne moom day dem juma yi kon loolu waaw dafay xaraam dafay xaraam si moom dafay xaraam si moom mu ne wa amma arkaanu waaye ponk yi mu ne wa arkaanu arkaanuha waaye ponk yi fa xamsatun juróom la al awalu bi si njëkk al masjidu mooy jàkka alladi bi nga xam ne yekkoonu dina nekk jaamian di aji dajale mbooloo nee na ponk nag lay jàngal mu ne bi si njëkk moo nekk mooy jàkka jàkka dañuy jàkka kenn du ñëw rek wëre la ay birig wala nga ñëw tabax ko nga ñëw si ay mbedd fooy fay wala nga ñëw ay benn nit ñaar nit nga ne foofu mooy jumaa ji déedéet il faut nga dajale mbooloo moo tax mu ne la assaani ñaareel ba jamaatu mooy mbooloo walay sa nekkul la um ñeen leen xaadun doy inde maalik fa maalik ba lu fi nekk laa budd du mën a ñàkk an takkodu mu nekk jamaatan mbooloo maay nee na mbooloo bi nu mun ta yem rek baax na mbooloo bi nu mun ta yem rek baax na bu bëri woon ay millions yi nit sax baax na mu saxe biim si ñoom xaritun dëkk nee na jumaa ji na nekk nee na jumaa ji na nekk mooy si dëkk dëkk bi nga xamante ne dafay sax ay waxul la nga teg ko mu ci dëkk boo xamante ne nii ñoom dañ fay jugewaat wala nga tabax ko foo xamante ne dëkk baa fii nga tabax ko fële loolu baaxul bu baax kon jumaa ji du baax mu ne bu baax kon jumaa ji du baax parce que jumaa dañuy nga tabax ko fi fi nga xamante ne si biir dëkk bi nga tabaxee ko comme waa dëkk ba nun tabaxee seen yi noonu la ñu bëgg ko te teg si tamit ñoom wóolu nañ nga xamante ne bu dara ñëw na dinañ ko mën a fajal seen bopp waaye waxul la nga def tabax ko foo xamante ne ñaari ñoo fa nekk bu dara ñëw ne la xóor xóor ñëw ñëpp ñu daw bu waa ko loolu noonu du baax bu waa ko jumaa ji du baax mu ne war a jaaxal na baax doo imatina ñeen moom tajuzu dina naa asar rajul fukk ñaar ak góor baax yéen way dese li salaam ba sëlmal ga am na ñi ñiitu maali yi ñu ne jumaa su matee fukk ñaar góor ba jumaa ji dina baax fukk ñaar góor yoo xamante ne nag dinañ fekkee xutba bu njëkk bi ak bu ñaareel bi ba jeex su croisement xutba bi ba mu jeex fekkee julli ba mu jeex loolu lañ bëgg fekkee ñaari xutba bi ba mu jeex tàkk croisement ba fin fekk julli ba mu jeex mu ne nag bu doon imaam bi dañoo xutba xutba bu njëkk bi kenn tollewul xutba bu ñaareel bi kenn tollewul ñu julli kenn tolle ba xutba bi baaxul julli bi baaxul parce que dañuy bëgg ñu ñu ñaari góor yooyu ñu teewee julli gi ba mu jeex xutba bi croisement ba fin te texte bu ci kenn tolle mu ne a saali su ñetteel ba al xutbatu muy xutba al awalu bi si njëkk wayu moom rukk nu ponk na ala saaxi su waju gën a wér boo ko saali naka noonu xutbatun bu ñaareel ba beneen wax ji mooy di ponk waaye nag alal masuuri si si waju gën a siiw wala bu du mën a ñàkk an takku nu mu nekk wana zawali alal masuuri si waju gën a siiw xutba am na ñu ne ponk la bu ñaareel ba am nañu bu njëkk bi ñu ne ponk la waaye bu ñaareel am na ne ponk la waaye am na ñu du ponk waaye lu gën a wóor ne mooy ponk la waaye lu a wóor mooy ne si ponk la bokk mu ne wala buddu du na mu nekk baana zawali ginnaaw tisbaar ba xam ne sax ak njëkk julli nee na xutba kenn du ko bu bu deux bu zawal jotee si nga koy mën a def waaye soo xaaree zawal xaajul ba jot nga xutba bu baax julli ji baaxul julli gi baaxul xutba bi du baax dañuy bëgg na soo koy def nga defee ko mooy su zawal duggee ñaari xutba yi su zawal duggee parce que dafa mel ni parce que mu mooy remplacer ñaari raaka yu njëkk yi mu ne tamit nag doo julli ba pare ngay doog a xutba loolu loolu boo ko defee jumaa ji baaxul xutba du baaxul kon xutba da xaar ba sowal du nga doog kaa def ba pare doog a julli mu ne wala sa nekkul fii xutba si xutba xaddun doye inde malik fa malik ay dan ba tey wala budd du mën a ñàkk en takku ma nekk mi maa di bokk si li nga xam ne sommi dinañ ko tuddee al arabu arab xutbatun xutba nee na xubba nekkul da ne ne na xubba nekkul da kaa war a guddal fa foos da ngay xool li nga xamante ne moo xat ci moo xat ci temps bi nga def loolu te si mu nekk li nga xamante ne jumlatul mu fi doon arab bu ko déggee dina xam ne lii xutba la arab ki nga xamante ne arab la moom arab bi sànqal déggee dina xam ne lii la mu ne loolu lañ bëgg si xutba te da nekk jumlatul mufida bëggoon nga nga ñëw rek yow nga ñëw rek dugg rek nga ne xuumu yarhamukum laa mu leen yàlla na leen yàlla yërëm loolu noonu du xutba parce que euh, dañuy bëgg nga leen di waar nga nga leen tegal ay loo xamante ne ay histoire yu yénente bi nga leen koy wax wala nga leen wax li nga xamante ne moo xew si jamono bi mu ne nag xuumu yarhamukumullah mu ne lool noonu jumlatul mufiida la waaye nag du xutba xutba dafay nekk li nga xamante ne ni arab bu ko déggee moom dina ne ne lii nii la mu ne nag maanaam na nekk li nga xamante ne yi ñoom moom lañ daan tuddee xutba kon xutba kon loolu la ñu wax si xutba mu ne watu taxabu sopp nañ ak taxaaratu la fii maa si ñaari xutba yi nee na ñaari ñaari xutba mu ne dañuy sopp rek nga jàpp boo jàpp sax dina baax mu ne wa fii wujubul qiyaam nekk na si war a taxaw loolu ñëwee leen tara dund déng-déng mu ne nag mune ne ba xam mën nga xutba toog wala ba xam mën nga xutba taxaw mu ne ñu mujj ñi ñoom si ñu mujj ñi am na ñu ne mën nga xub ba taxaw mu ne ba nag ñu mujj ñi ñoo nekk ñu ne ñu mujj ñi ñoo ne mën nga ba taxaw mën nga ba toog am na ñu ne mën nga xutba toog am na ñu ne mën nga xutba taxaw waaye lu gën a wóor ba wóor mooy yéen di yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam musul ba toog Abubakar musul xutba toog Omar musul xutba toog Ousmane musul ba toog Ali musul ba toog Muawiya moom moo mu musul xutba toog te yaram mu diis moo waraloon kon loolu moo lay war ne amul benn test bu si kon loolu la ñu wax ci xutba mu ne arrabi on ñeenteel bi al imaamu mooy imaam mu ne jumaa ji mu am imaam kenn kenn kenn jumaa kenn ko julli kenn kenn il faut mu il mu am imaam mu ne wa sifati yi bokk na ci melo yi ay yakunu mu nekk ñu mën di bokk ci li nga xam ne tajibu dina war a alayhi al jumaatu juma mu ne na nekk nag mu ne imaam bi nekk ba ki nga xamante ne jumaa war na ko moo tax mu ne ixtira ixtiraasu mooy tane ko mi na sabi si xale al musaafiru aji tukki nee ne ki nga xamante ni dafay tukki lu mu doon doon doon kilifa lu mu doon doon doon doon kilifa mënu laa jiite waaye bu dee dafay sax si dikk bu dee dafay sax si dëkk bi kar far mu ne bu waa kon la mën a jiite mu ne waxee yi ma ak dul ñoom ñaar comme comme li la nga xamante ne jumaa war na leen képp ki nga xamante ne juma war ko war ko rek bu waa bu la julee du bu du baax moo tax mu ne la mi man di bokk si nga xam ne ilam tajub dina war a alay si moom wa xëy ma ak ñaar mi man di bokk si nga xam ne ilam tajub dina war a alay si moom mu ne wa yustaratu sartaanan ay yakuna mu nekk almusalli aji almusalli aji jiide bi jamaati si mbooloo ba boobu moom alqaatu mooy aji xubba ilaa lu ansur lu muy ngànt yem naw bi koy tere min zaal ko si loolu mu ne min junudin min maridin ni ki feebar aw junudin wala dof aw naxwi zalika wala yu yooyu mu ne nag dañuy bëgg imaam bi nga xamante ni mooy xutba dañuy bëgg mu jiite mu ne mu ne kooku lañ bëgg jiite waaye nag bu dee dafa am gànt mu dof wala mu xam wala lii mu bu ko keneen mu waaye nag mun la mun nag bu dee imaam moo doon xutba ba yàgg mu tey tojle wala mu def leneen mu du loolu mu ne nag waaye nag bu dee ñoom dañoo tànne ñu ne kii mooy xutba kii mooy jiite mu ne bu baax kon loolu noonu du baax parce que dañuy bëgg ba ki nga xamante ni moom moo xutba mu jiite parce que loolu noonu si startay la bokk waaye nag bu dee nag bu dafa tojle wala mu am gànt wala mu xam wala mu dof bu baax kon dañuy jiital keneen aw nax yu zaalika wala yu mel ni yooyu mu ne yëpp dina war intisaaru mu ñël ko li uzuri ngeen gànt al qarib bu jege xala asaxi si wax ju gën a ñu ne nag bu dee nag bu dafa am gànt mu ne ñu xaar ko moo gën ñu xaar ko moo gën waaye nag am na ñu ne mu jël soo jël sax ñu koy xaar mën nañ jiital keneen mu ne alxamis juróomeel ba maw doxoon istitaani mooy barabu dëkkoo waay falaa taxaw moo taxaw aljumaa aljumaa ñeen jumaa duñ ko tabax lu muy si barabu dëkkoo waay dañ koy tabax jumaa dañ koy tabax si dëkk bi nga xamante ne ñëw wóolu nañ seen alal ba nga bu dara ñëwoon ñoom dinañ mën a défendre seen bopp foofu lañ bëgg tabax juma moo tax mu ne la ilaa fi mawdu lu muy si barab juste oo tax ne bu ñuy dëkkee fii si moom wa yëkkër mu nekk mu xalan di wàcci waay lii xamante ngir sax jum dina jàpp ne almos waa dëkk fii si moom bala doon dëkk bu ndaw ak ba doon dëkk bu mag kaana nekk na ak xayatun wala dëkk bu ndaw nee na jumaa dafa way nekk si dëkk bi nga xamante ne dëkk boobu noonu ñoom dañ fay sax waaw bu dee ñoom dañ ñoom fii lañ tabax jumaa ji ëllëg ëllëg dañ fa jógee dem bu waa waa kon bu waa kon bu jumaa ji du baax nee na mu ne nag bu nekkee sax si dëkk bu ndaw baax na bu nekkee si dëkk bu mag baax na waaye na fekk na ñoom wóolu nañ seen alal te bu dara ñëw dinañ mën a défendre seen bopp mu ñëw si teggin mu ne wa amma aadaabul jumaati waaye tegginu jumaa yi fa samaanatun juróom-ñett la al awalu bi si njëkk al xuslu mooy sang laxaa ñeel jumaa ja woo moom solotul sundula andal jumhur si mbooloo borom njëkk mooy sangu si si teggi ne la bokk waaye mbooloo xam-xam yi ñu ne loolu noonu sunna la ñu ne loolu noonu mu ne ba muy suuti bokk na sax tey ay yekk na mu nekk mu tas la di jokk biir waaye si dem nga nee na dañu bëgg boo sangoo rek nga dem bu xaaraat dara mu ne nag fa nekk tasa bu sangoo wastaxala mu soxla bi xadayin si añ aw nemnu wala nelaw mu ne nag bu dee dafa sangoo pare war dem jumaa ja mu soxla leneen añ wala nelaw wala leneen mu ne nag aada na baamu alxaslu sang xal ma suuri ci wax ju gën a siiw mu ne wax ju gën a siiw nag mooy nga baamu waat mu sangu gi pour mu gën a mat kon nag sangu dañuy bëgg boo sangoo rek nga dem dañuy bëgg rek boo sangoo rek nga dem jumaa ja waaye bu dee ngaa sangu añ wala nga tëddaat bu waa kon bu waa kon dañuy bëgg nga waa kër mu dañu bëgg nga baamuwaat sangu bi mu ne astaani ñaareel ba aswaa ko mooy socc dañu bëgg balaa nga dem jumaa ja nga socc astaal ñetteel ba xalqu saari mooy wat sa karaw dañuy bëgg nit ki balaa moo dem jumaa ko mu wat karaw gi wala kon mu wàññi ko ba mu rafet araabi moom ñeenteel ba taxalu azafir mooy lelwee dañuy bëgg nga dagg sawee alxamis juróomeel ba te jëndabul maa mooy moytu li nga xam ne te wala du dina juddee minu minu sion a rayxatu xet ak këratu ju bon dañuy bëgg booy dem jumaa ja nga moytu xet bu bon bu nga xamante ne bu demee da ngay lor jumaa ja bëggul loolu loolu moom bu dee nag boo demee sax dafay lor jumaa ja waaye dafay xaraam waaw ah, bëggul nga yóbbaale xet bi nga xamante ne dafay lor waa jumaa ja mu ne asaalisu juróom benneel ba ta jàmmulu mooy rafetlu bi si yaabil si yére alxasan bu rafet dañuy bëgg booy dem jumaa ja nga sol yére bu rafet waaye nag lu gën mooy nga sol yére bu weex waaye nag dañuy bëgg nga sol yére bu weex mooy gën a baax jumaa lu ñu bëgg dañu bëgg sax nga sol mu yëre bu weex donte dafa màgget sax nga sol ko waaye bu dee da am yëre bu weex bu gën a bees boobu noonu nga boobu mooy gën waaye nag bu dee korte wala tobaski bu baax dañuy bëgg nga sol bu bees tàq bu bees tàq waaw bu dee yow da nga amoon sax mooy yëre bu weex waaye nga am bulo bu bees tàq bu baax kon nga sol bulo bees tàq bulo bi sax dina baax waaye nag juma moom bu gën a weex waa juma bu yëre bu weex la ñuy gën a bëgg mu ne assaabion juróom-ñaareel ba ak tayibu mooy laal parfum la xañal jumaaja dañuy bëgg nga laal parfum parfum bu neex nga am xel bu neex mu ne parce que parce que diine l'islam mu diine bu sell la ñun ñun vendredi moo nekk su suñu fet dañoo waroon sol ay yére yu rafet ay yére yu baax parfum parfum bu neex di daaw comme di daaw ñu loolu la ñu waroon def parce que vendredi moo nekk suñu fet moo tax mu ne nag asaaminu juróom-ñetteel ba almashi mooy dox laxaa ñeel jumaa ja du du na rukk bi walis lu war ilaa lu ansur lu muy na bu koy tere min zalika si loolu nee na dañuy bëgg booy dem nga dox parce que day tax ma toroxlu bi mu day gën a mat waaye nag bu dee da am ngànt bu baax ko war dara waaye nag lu gën mooy nga dox mu ne wa amma anzaru waaye ngànt yi al mubihatu e dagana li taxaluf wutee ana walis jumaa ja mu lay jàngal nag yi nga xamante ne dara bu la so dalee mën ngaa ñàkk dem juma mu ne min zalika boo ko doon am turu taw as-sadid bu tat taw bu tat ba nga xamante ne boo génnee yow yëri nga soro dina tooy bu baax kon mën nga toog wala waxam ne ak bataxu alkasiru ñu bëri bataxu bi dafa bëri ba nga xamante ne yow boo génnee sa daal mën na faa def wala doo mën a yegg bu baax kon mën ngaa toog wala mu jësam ak borom a ngaane nga xam ne te durul dafay lor a rayxatu xet jamaati si mbooloo ba nee na ngaana ngaana tamit ko noonu jumaa waru ko waaye nag bu dee dafay ngaana dafa bëri ba nga xamante ne dafay lor waa jumaa ja mu ne bu baa ko loolu noonu dafay xaraam parce que l'islam bëggul kuy lor mu doomu aadama mu ne wal maridu ni ngi feebar wa tamridu ak feebar le bi ayakuna mu nekk indi fa moom indawu fa moom ahadun kenn min ahli si ñooñam maridan feebar ka zawjati ni ki jabaram wala di ni ki xale waxadul ab wayn wala kenn sa ñaari waajuram wala sa nekkul indi fu moom man yaalu ku ko toppatoo feextaaju dina aju yotu xale fi jëm si wutee itam ri di ngir feebar la mu ne nag bu dee dafa am mbokk bu dee nag moom kenn ay njege moo feebar comme ni ki jabaram wala xale bi wala kenn si ay ñaari waajuram te amul ko ko toppatoo moom kese moo ko mën toppatoo kër boobu noonu kon kooku am na ngànt mën a toog toppatoo mën a toog mu toppatoo leen kon kooku mën a toog toppatoo leen mu ne wa bokk na si loolu isa tudra nam sukuraan na ahadun kenn min aqaaribi si ay njege ñaaleem ay iqwaanihi wala mbokkam xaal wax na maalikul maalik fi rajulin si góor yëliku dina alko mooy dina dee yowmul jumaatu bi si ajuma faydu xalafu mu wuti inde fa moom arajulu góor min ixwaani si mbokkam yam zur mu xool fii soyni si mbiram la ba sa ayul fii daal si loolu mu ne nag bu dee bisu àjjuma mu am mbokkan muy suturaat mu kooku noonu mu ne na mën na kooku noonu am na gant mën na taxaw xool ay mbiram xool comme ni ko war a sàngee waajal bi nga yëpp mën na kaa def kon kooku am na ngànt mi naa bokk na sa ngànt yi law xaafu bu doon si si boppam min dor bi zalimi si dóor aju tooñ aw xab alalam de aw xab wala tëj ko wax ji maalihi wala nangu àllam ki nga xamante ne dafay ragal bu génnee dem julli ji jumaa ji ñu dóor ko ci pour tooñ wala ñu tëj ko ngir tooñ wala ñu nangu àllam ngir tooñ ko boobaa kon kooku noonu am na nga xam ne mën na ñàkk dem toogi waka zalika naka noonu almu'sir aji ñàkk waka zalika naka noonu almu'sir aji ñàkk ya xaaw dina ragal ay bisawu ñu tëj ko xidaaru kiliyaam an asaxi si wax ji gën a mu toog kii nga xamante ni dafa yore nit ki bor te waa ji booy na ko police ba pare police moom rek lay xaar mu génn mu tëj ko kon kooku noonu mën na toog waaye nag bu dee nag moom dafa am lu muy fayee ba pare am na lu muy fayee mu war am lu muy mu war a fay fayul kon kooku noonu jumaa war na ko kon kooku noonu l'islam dafa am dara ko waaye nag bu dee nag l'islam ka lay dafa am ki nga xamante ne bu génnee dem jumaa ja ñu ko wala ñu tooñ ko nangu àllam kon kooku noonu l'islam moo koy défendre mën a mën a toog waaye nag ki moo ko tey amul gànt dara dalu ko mu toog kon kooku noonu mu ditaam téewu ko mu dara jotu ko mu ne wa min zalika bokk na si ngànt yi al ama gumba alal bi nga xam ne laa qaayida dir aji omat la huñeel ko gumba bi nga xamante ne amul ku ko omat kon kooku mën a toog amaa law kaana wala mu nekk la huñeel ko xaayidun aji omat aw kaana wala mu nekk mi man di bokk si nga xam ne yow te di dina gindeeku li jaamia ba si jumaa ja bilaa xaayit bi si lu dul aji omat falaa yujisu du nekk falaa yujisu du dagal la huñeel ko alxala wuutee xanaa wala si jumaa ja nee nag bu dee am na ki nga xamante ne moo ko yóbbu jumaa ja kon kooku dafay ànd ak moom mu dem jumaa am na bu dee nag moom mën na gindeeku mën na ci boppam dox te dara du ko faagaagal si yoon bi mu dem jumaa ja mu ne kon kooku noonu mën a dem jumaa ja kon kooku noonu mën a dem jumaa ja mu ne wa yaxramu dina xaraam asafaru tukki inda zawali si jamono zawal mi yowmal jumaati si bisu ajuma bu zawal demee ba dugg si bisu ajuma bu zawal demee ba jot tukki dafay xaraam tukki dafay xaraam bisu àjjuma bu soo demee ba jot tukki dafay xaraam mu ne alaamat si kii nga xam ne nag tajib dina war a alay sama aljumaa jumaa wa kazaalika naka noonu yaxram dina xaraam alay sama alkalaam wax dee mu ne wa yaxram dina xaraam asafar tukki inda zawaali si jamono zawaal mi yemal jumaa bisu àjjuma alaamat si ki nga xam ne tajib dina war a alay sama aljumaa jumaa ki nga xamante ni jumaa war na ko bu zawaal demee ba jot jumaa war na ko bu zawaal demee ba jot kon kooku tukki xaraam na si moom tukki xaraam na si moom mu ne wa kazaalika naka noonu yaxram dina xaraam alay si moom alkalaamu wax wa naafatu ak naafile wa imaamu te fekk imaam yaxtuum yi xubba sa moo xam kaa nekk def fi xubba di si xubba si tu ulaas xubba bu njëkk bi aw saante wala bu ñaareel ngay wax si xubba bu ñaareel bi wala bu njëkk bi yooyu dafa xaraam yëpp dafa xaraam yi yéen di yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee nit ki bu wax sax nga ne ko noppil sax yow wax bu doon wax da ngay mel ne ku amul gémmiñ comme moom dañuy wax ne mm, mm, noppil noonu ngay def comme mu xam nga junj ko daal mu xam ne moom di wax si juma baaxul mu noppi naafila tamit bu imaam demee ba commencé xutba bu njëkk wala bu ñaareel bi dafay xaraam mu ne waaye julli si mu toog arajulu góor wala ay soli bu mu julli illaa ay yakoon lu mu nekk te la basan lamboo bi nafli si naafile xalu duxul imaam bi njëkk a dugg imaam fay fay tima mu fay tima mu loolu mu ne nag bu dee nag moom daa ñëw bu dee nag imaam moom moom commencé na julli ba pare imaam doog a ñëw daa commencé julli imaam ñëw di xutba mu ne boobaa kon dafay continuer julli ndax alquran moo ne walaa tubtilu amalakum bu leen yàq seen jëf yu baax boo commencé julli imaam ñëw di xutba boobaa kon da ngay continuer bul yàq waaye nag bu dee da ngaa xaar ba imaam di ñëw mu ne mu ne loolu du baax da ngaa xaar ba mu ne loolu dafay xaraam mu ne wa yaaramu dina xaraam al bay jaay wa shiraa ak jënd indal azaani si jamono ñu ne azani saani si jamono noddu ñaareel ba bu demee ba noddu noddu ñaareel ba jaay ak jënd dafay xaraam moo tax mu ne wa yuf saqu daf nañ ko fe fecci in waqa xew na nee na loolu noonu bu xewee si bu nee ba noddu noddu ñaareel ba bu jaay jënd amee bu nit ki dafa jënd kii jaay mu ne bu waa kon dañuy woo ki nga xamante ne moom marchandise bi ñu joxaat ko bagage am ku moom alalam ñu joxaat ko alalam parce que bu jumaa xasee ba jot dara du la war mooy lu dem jumaa ja dara du la war mu ne du dem jumaa ji mu ne wa yukrahu sib nañ tarkul amali bàyyi liggéey yowmul jumaati bisu àjjuma mu ne ki nga xamante ni moom moo jël bisu àjjuma mu ne nag yow bu dee nit ki moom dafa ñëw mu ne comme koo xamante ni moom moom bisu sa àjjuma bu jotee rek moom day bàyyi liggéey bàyyi lépp ngir jumaa ji mu bu waa ko loolu noonu mu ne loolu noonu dañ koy sib mu ne loolu noonu dañ koy sib waaye bu dee nag yow yaa ko jël comme vendredi bu nekk sa jour noppalu kaay carrément jour noppalukaay carrément mu ne lu boobaa ko loolu noonu mu dara nekku si mu boobaa loolu mu dara nekku si parce que loolu noonu du mu ne yowmul jumaati bisu ajuma nag mu ne wa tanafal imaam ak naafila imaam qabla xutbati njëkk xutba imaam loolu saa mu ne imaam nag dañu bëgg suy naafile mu naafilee këram wala suy ñëw si jumaa ji néeg bu ndaw mu naafile fa waaye imaam warul ñëw imaam bu ñëwee rek daa war a yëg si mimbar bi toog xaar ñu nodd su noddee ba pare mu xutba warul ñëw di julli parce que bu waa kon gars yi dañuy yaakaar ne parce que gars mu ne waqas aleka naka noonu yu koy sunna li jaale toog ay yeeta nafalo mu naafile ñu dal jamono nodd al awala bu njëkk ki nga xamante nii dafa ñëw toog daa ñëw léegi mu julli dafa toog bàyyi ba ñuy bàyyi ba imaam ñëw ba commencé xutba mu jug julli mu ne bu baax kon loolu noonu dañ koy sib waaye nag lañ koy sibee si ki nga xamante ni kilifa la si ki nga xamante ni moom kilifa la te gars yi dañ koy dañ koy sib waaye ki nga xamante ni moom kenn ko roy bu baax kon kooku noonu mu kenn sib ko waaye bu ñëwee nag ñu bëri ñu ëpp si jumaa ja noonu la ñuy def mu ne bu baax kon kooku dañ koy far sib mu ne wuyu ko sib nañ xuduura saabati teewal ndaw lu jigéen mu ne fii nag la lay waxee jigéen fi fi fii lay waxee si wàllum jigéen mu ne jigéen ji nga xamante nii dafa rafet dafa rafet bu ba nga xamante ne bu ñëwee si jumaa ji dafay yàqal gars yi julli jumaa gars yi dañuy nekk di ko xool mu ne boobaa kon loolu noonu boobaa kon jigéen jigéen ju rafet ji jumaa dafay xaraam si moom waaye na bu dee ki nga xamante ne dafa ñaaw kon kooku noonu dañ koy sib waaye bu dee mer la ba nga xamante ne kenn ko xool mu yenn xool yi mu ne boobaa sax kooku noonu ken sibu ko lil jumaati juma mu ne waqas daanaka noonu asaful tukki mu àndal fajar ginnaaw fajar mu ne nag bisu ajuma bisu ajuma moo tax mu ne waqas daanaka noonu asaful tukki mu àndal fajar ginnaaw fajar bisu ajuma tukki ginnaaw fajar loolu noonu dañ koy sib tukki ginnaaw fajar nag loolu noonu dañ koy sib waaye si bisu vendredi waaye nag bisu vendredi bu zawal dañu bu jot ci lay xaraam mu ne wallahu alam yàlla mooy aji xam kon tey lii lañ jotoon indi si darsu bi mu ne in uridu illa islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh